سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله إذن لا لا بغتي جون كل جول مك ما بولي سرين بتاغ بمن فما دمبي دون نايمنا ما يا سما بيتي حبيبنا ما يعيش ما بيتي الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله وبدلال غير الفناء حبيبنا ما يعيش ما بيتي دفنا سلوكنا بدل الدكمل banampong Cheikh Foutal maam Cheikh bu jërëjëf naa yëg nga jës bu ma may sellal njabootu Cheikh Sidil Mokhtarul Kuntiyu njabootu Cheikh Abdul Qadir al Jilani ngeen may ñu tuuti képp kuy taalibe képp kuy njabootu Cheikh bu ma amee Kunta soxal seen jërëjëf Kounta Sidi Maam nga ñëw Pape Mambu mooy nuyu waaw jërëjëf kooku bu Bale mooy nuyoo ñëw nuyu si xalifa bi suma turandoo Papa Abdourahmane mi yor baat bi mu ne bu ngeen gisee lii Papa Abdourahmane bu ngeen gisee lii am na lu ko waral de nee na lii am na lu ko waral de suñu doom ñuy wax Cheikh doom ji ñuy wax Cheikh bu Diop mësta yëkkati dara. nee na mësta yëkkati dara. te ñëwul ci sëriñ bi. te ñëwul ci xalifa bi. jël ndigal. jël ndigal. ci moom ñaan sàkku ci moom ñaan. ba nga xamee ni misar na ko. nee na lii ba mu ko ñëw ba ci moom. dafa ñëw ba ci xalifa bi. sàkku ci moom ndigal. sàkku ci moom moom ñaan. sàkku ci moom ñaan. sëriñ bi ne ko. sëriñ bi ne ko. may naa la ndigal. may naa la ndigal. tey dinaa la ñaanal. tey dinaa la ñaanal. ba mu fa jógee. ba mu fa jógee. mu xam ni nekkuma fi. mu xam ni nekku fi moom papa Abdourahmane. daf téléphone téléphoné. téléphone téléphoné. fekk ma Conakry. mu fekk ko Conakry. mu wax ma li mu waxante ak. mu wax ko li mu waxante ak sëriñ bi. ak li ko sëriñ bi tontu. ak li ko sëriñ bi tontu. loolu nag su amee. nee na lu mel noonu bu amee. kilifteef kilifteef moo ko waral. nee na kilifteef moo ko waral. ku nangu ñu yilif la. ku nangu ñu la. di nga am lu mel nii. di nga am lu mel nii. waaye koo xam ne dafa bëgg a yilif. waaye koo xamante ni da ngaa bëgg a yilif sa bopp. sa bopp rek ngay am sa bopp dong ngay am. kon lii jàngale la. kon lii am njàngale la. ku ne xam na ni. ku ne xam na ni. sëriñ bi amul jot. sëriñ bi amul jot. yaramam mayu ko ko. yaramam mayu ko ko. tey dafa yendu. tey dafa yendu. di recevoir ay gan. di dalal ay gan. tey mu waroon a noppalu. te a noppalu. bi mu xamee ni. lii tey la. lii tey la. ñu fàttali ko ko. ñu fàttali ko ko. daf ni. daf ni. li may tële tële. li may danaa fa fa egg. ñaanal ko ñaanal ko ñaaxaat njaboot ñaaxaat njaboot kon nga la waay kon nga la am kilifa nañu kilifa nañu tënku ci kilifa nañu tënku ci kilifa tey déglu kilifa tey déglu kilifa wallaahi wallaahi ku koy déglu ku koy déglu boo nekkoon ba Tamba boo nekkoon ba Tamba dana la fa fekk dina la fa fekk sagal sagal la sagal cheikh bu sagal cheikh bu sagal tariqa bi sagal tariqa bi sagal taalibe yi sagal taalibe sa gal njaboot sagal njaboot kon jërëjëf Kunta Sidi Maxtaar jërëjëf Kunta jërëjëf Kunta def nga lu rafet sa dooma ngi nii sa dooma ngi sa taalibe ngi say taalibe ngi say taalibe ngi ak say doom ak say doom say rakk ngi ci jotaay say rakk ngi ci jotaay bi ñoo la fi toogal ñoo la fi toogal ñoo la fi jëmmal ñoo la fi jëmmal xam nañu ni xam nañu ni amoo jot amoo jot sa yaram mayu la

ak Cheikh bu Diop. kon nag nga góorgóorlu. kon Cheikh bu Diop nga gën a góorgóorlu. nga góorgóorlu nga góorgóorlu bu baax. ngalawaay ngalawaay. yéen xale yi yéen xale yi. na ngeen jàngat ci lii. na ngeen jàngat ci lii. am solo. daa solo lool. lii yombul de. lii yombul de. du ko jóg am cheikh bu mu toog xaw nii de. waaye tey day na ko. bu jóg am nga ko. bu Kunta toog cheikh bu Kunta toog. cheikh Albekaaye ngi nii. cheikh Bunaamaa ngi. cheikh Sidil Maxtaara ngi. cheikh Abdou Khadir Jeylaani ngi nii moo toog. jërëjëf. jërëjëf cheikh. tey Bekaay. tey yaa di cheikh bu. tey yaay maam danga may wan ni yaay moom seexal bi kaay waliyu laa lii wóor na leen laa ilaha illallah laa ilaha illallah dëgmal ci laa bu fi yow soppee borom jaasaan dëgmal si naa bu fi loo amul loola duma jommal jox weenu leer di ma nampal yaay xalifa naa jërë ngeen papa Abdou mu ne mbokk yi jërë ngeen jëf benn wasiya bi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani waxoon nee na dafa am lu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani waxoon muy ben ndénkaane bu mu dénkaane woon mu di benn ndénkaane bu mu dénkaane woon moom lay fàttali njaboot gi moom mii moom lay fàttali njaboot di jaar Abdoul Ali na nga xam ni na nga xam ni rakka ci xaaju guddi benn rakka ci xaaju guddi. moo gën junni rakka ci bëccëg. moo gën junniy rakka ci bëccëg. yow Abdoul Ali. yow Abdoul Ali. na nga xam ni. na nga xam ni. sunu yoon wii. sunu yoon wii. ñu ngi ko tabax. duñ ko tabax. ñu ñu ngi ko tabax. ñu ngi ko tabax. ci alquran. ci alquran. ak sunna. ak sunna. ak dëgg. ak mottali kollëre. ak mottali kollëre. ak yanu ay diis yu méttee métti. ak yanu ay diis yu méttee métti. ci ay tuuma yu ñuy teg. ci ay tuuma yu ñuy teg. te dara amu ci. te dara amu ci. waaye maa ngi lay digal ni. waaye maa ngi lay giñal ni. képp ku def lu ñaaw jëme la ko. képp ku def lu ñaaw jëme la ko. na nga jël lu rafet delloo ko. na jël lu rafet delloo ko ko. képp ku la dog ak bokk. képp ku la dog ak bokk. na ko jokkoo ak bokk. ku mënoon démb ba xañ la. ku mënoon démb ba xañ la. bés bu mënatul ba nga man bés bu mënatul ba nga man bul xool na mu la def. bul xool nam la defoon. waaye na ko jox. na waaye na ko jox. ta nga sant ko yàlla. ta sant ko yàlla. loolu la la sëriñ bi di fàttali. loolu la la sëriñ di fàttali. di ko fàttali njaboot gi. di ko fàttali njaboot gi. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. lii nga sumb nii. lii nga sumb nii. yal na ko yàlla gunge. yal na ko sunu borom gunge. ci jàmm. ci jàmm ak salaam ak salaam réew mi réew mi moom la ñu am moom la nu am te mënuñu koo séddoo te mënuñu koo seddoo te kenn mënu koo baal sa morom te kenn mënu koo baal sa morom te faw ñu dund ko te faw ñu dund ko kon sëriñ baa ngi ñaan kon sëriñ baa ngi ñaan yal nañ ko dund ci jàmm yal nañ ko dund ci jàmm ak dal ak ñaan itam. di ñaan itam. la mu waxoon démb. la mu waxoon démb. te jëmale ko ci njiitu réew mi. te jëmale ko ci njiitu réew mi. muy li nga xam ni. muy li nga xam ni. moo dox diggante Mali. moo tax diggante Mali. ak CEDEAO. ak CEDEAO. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mi ngi yëkki kàddoom. mi ngi yëkkati kàddoom. di ko ñaan président Macky Sall. di ñaan le président de la république Macky Sall. lépp lu mu ci man. lépp lu mu ci man. ci ay naata ngoom. ci ay naata ngoom. ba lépp ratax. ba lépp ratax. ndax Afrique yëpp. ndax Afrique. Afrique yeb ay domi nday la ay domi nday la te li xajul sen digal te li xajul sen digal kon serigne bangi ñaan kon serigne bangi ñaan ñu dox ci ñu dox ci doxine wu gëna rafet doxine wu gëna rafet ba lépp delu ci ba lépp delu ci nek jam nek jam ak salam ak salam ak natange ak natange ak xéewal ak xéewal salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf talal len loxo yi kunta sidi maxtaar yàlla na fi yàlla bay yàlla na nga wér yàlla na nga am jam ak njabot cheikh bou mohammed kunta yeb njabot Cheikh Al Bounama amiin yal yàlla nang nek mu sotti ko fi سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله